Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali jàmm ñu ànd xëy yër yéen i ñu xëyantoo yéen i kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naa ñu njiitu réew mi di président Macky fa mu nekkoon démb ak bërki démb ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat gi ba léegi nii jógee gu fa la mu waxoon ne képp koo xam ne wax nga ci lu jëm ci ñetteelu mandat bi te nañu la jox sab toroxal Macky Sall magasa ginnaaw Souri Kaba mi nga xam ne dénkoon nañ ko fi lépp loo xam ne jëm na ci Sénégal yi nekkoon bitim réew ñu invité ko woon ci ab rajo mu nekk fa di wax ne Macky Sall wurta def fa ñetteelu mandat ba émission ba maanaam sa la ñu ko dàq ñu ne déete waaye Moustapha Diakhaté mi nga xam ne defoon nañ ko ministre conseiller moom tim mu wër média yi di wax ne Macky Sall wër te def fa ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal moom waxuma la sax tekki ndomal tànkam waaye parti bii di APR dañ ko saa mujjee dàq maître Moussa Diop mi nga xam ne moo jiite Dakar dem dikk fan yi nga xam ne moom la ñu génn dafa demoon ci benn télé di waxtaan ci lu jëm ci wàllu male coup d'état bi nga xam ne am na fa si la ko taskatu xabaar yi laajee lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat yi la mu sa tontu nee na ñetteelu mandat yi loolu coup bëri njortoon nañ ne maître Moussa Diop maanaam danañu ko daal di dàq waaye nag njiitu réew mi di président Macky Sall journal bi nee na la mu nekk moom jógu sa en tout cas am na lenn loo xam ne maanaam waxu ko Sénégal yi te ma ngi koy nëbb ci lu jëm ci ñetteelu mandat yi yéen a kaay gii di Dakar Times xëy di ñu xamal naan ñu Macky Sall dàq na maître Moussa Diop waaye nag moom rek moo si desoon ndax bëri na ay alliés Macky Sall yoo xam ne duñu ko défendre ku si mel ni Moustapha Niass wala Aminata Mbengue Ndiaye mel ni moo yoroon parti bokk ci coalition benn bokk yaakaar doon dem ci plateau yi doon défendre bilan Macky Sall maître Moussa Diop moomee la ñu dàq yéenekaay gi di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu maître Moussa Diop dafa dugg ci Dakar dem dikk bi mu ñëwee ba ci terminus bi mu daal di wàcc Le Témoin nee na dem na te du dikk moom maître Moussa Diop Libération yéenekaay na maître Moussa Diop egg na terminus ñetteelu mandat bi moo ko yóbbu yéenekaay gi di Source A xëy di ñu xamal naan ñu ñetteelu mandat poson la ci réewum Sénégal képp koo xam ne jege ñaale Macky Sall nga mën a wala ngay ab foronom fi di wax ne wóor te def ñetteelu mandat na la na dañ lay dàq xamante ni moom màttoon Sory Kaba màttoon Moustapha Diakhaté tey jamono ji moom màtt maître Moussa Diop waaye nag li nga xam ne moo jaaxal askanu Sénégal am na ñu nekk ci réew mi di ay farandoy Macky Sall bis bu yàlla sàkk ñoo ngi wax ne Macky Sall dafa war a def troisième mandat te ñooñu Macky Sall du leen def dara maanaam daal boo ne Macky Sall war naa def troisième mandat ñu lay applaudir di la tàccu di la jaajëfal te soo ne wuru ko def ñu tekk sa ndombal tànk journal bi nee na loolee bëri na ay sénégalais yoo xam ne jaaxal na leen exclusif ñu fekk fa tas ko xabaar bii di Adama Gaye nee na jot na sëkk jot na sëkk ak barke ñu daal di arrêté ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall ndax l'heure est grave jamono ji Sénégal xonq na curro musiba yi bëri na Macky Sall ma ngi yàq réew mi maanaam nañu wax ak moom kàddu yu Adama Gaye la yéen kaay gi du Sud Quotidien xëy di ñu xamal laan ñu maître Moussa Diop mi jiite woon Dakar dem dikk jamono ji ku ñuy wax Omar Boun Khattab Sylla di am magistrat maanaam moo ko wutu ca dakaar dem dikk ma dikk ci yéen kaay gi du 24 heures mu xëy di ñu xamal laan ñu inondation yeeg bëri geeg jaaba jonge gi nga xam ne moom la nekk ci réew mi ay quartier yu ci Ndakaaru tëmb nañ ci ndox mi ak yenn ci ay région loole nag tax na njiitu réew mi di Macky Sall mel ni lu mer interpellé Serigne Mbaye Thiam wax ko na ko andil ma bilan ci li nga xam ne def ngeen ko ci inondation yi Mamadou Lamine Diallo nee na bu ñu waxantee dëgg mbënn mi Macky Sall da cee dummóoyu askanu Sénégal bàyyi leen seen coono yéen kaay gi du a mu ñu xamal naa ñu lu soxal wàllum déclaration patrimoine ministre bi nga xam ne moo ko deful Cheikh nga xam ne moom lañ dénk njàng mu kaw mi journal bi nee na ci ay xibaar maanaam dafa fekk fa Modibo Diop di expert consultant international ingénieur polytechnicien mu xëy séq waxtaan wu yaatu ak waa réew mi quotidien wax na ci Covid 19 ak ni nga xam ne moom la gàllankoore koom-koom bi maanaam économie bi ci Sénégal ak ci dëndu Afrique wax na tamit ci nan la ñuy def ba bor bi nga xam ne Afrique amee na ko maanaam ñu daal di koy niilal mu ne lenn rek moo koy saafara mbooleem ñi nga xamante ne ay way politique lañu ak i intellectuel ñëpp booloo takku def wenn say ci ginnaaw président Macky Sall ngir ñu mën a baal Afrique bor bi nga xam ne toll na si trois cent soixante soixante-cinq milliards de dollars mbir mi nag du wàllum politique ngir ñu baal Sénégal bor yi loolee moom daray politique raxu ko kàddu yi Modibo Diop la daan nay rafetlu tukkib nemmeeku bi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall defoon na ko ca Paris la France ndax nee na loolee dafay gën a rataxal diggante Sénégal ak France wax na ci comité force Covid 19 bi ak secteur privé bi nga xam ne Bokar Si mi jiite association professionnelle des banques ak président Mbagnick Diop mi jiite MEDES ñoo fa teewal secteur privé bi wax na ci bilan bi wax na ci mille milliards yeeg ni nga xam ne moom lañ koy doxalee na ci proposition yi nga xam ne secteur privé bu Sénégal defal nañ ko waa comité force Covid 19 jëm ci mbay jëm ci wàllum wér gi yaram gi jëm ci wàllum napp gi Modibo Diop nekk président commission économie finance et fiscalité ci MEDES ba pare nag nekk membre conseil national du numérique ci Sénégal wax na situation numérique ci réewum Sénégal ma ngi ci réew mi ko di jaay stade yéen a kaay xëy di ñu xamal lan ñu Diao Baldé Keita de Milan ak Monaco ndax jamono ji Diao Baldé Keita maanaam dana yéegaat sa kaw FC Barcelone daat nañuy nag